mbokk yi ñu ngi leen di sant yéen ñëpp di leen gërëm waaw safar gi moom niñ ko daan dundee rek bi mooy deuxième édition bi ñu koy def euh, ci euh, njiitalu président conseil départemental ak euh, ndigalu tamit SG bi ak personnel bi yëpp nga ne ñoom ñoo dogu doon benn parce que na ko liggéeyee Seexu Xadim moo tax ren ñu taxawaat boolewaat suñuy doole gën koo yokk daaw àgguñu woon fii ren danoo agsiwaat ba fii te danoo bëgg at mu nekk rek incha allah muy muy gën a yokk mel ne góor jigéen ñëpp ci euh, bokk jàpp euh, ngeen koy organisé day autorisé wala waaw ku nekk rek da ngay tàbbal sa loxo ndax liggéeyal sëñ Tuubaa du loo xam ne nii rek kenn nit rek koy def kenn nit sax bu ko mënee rek sëñ bi du ko nangu day bëgg ku nekk tàbbal ci sa sa ñàkk bu ko defee mu gën a mu gën a waaye ki nga xam ne mooy fii njiit def na ci loxoom lu am doole ñi ci des ñëpp topp si ku nekk la nga am dugal nga ko ci ba ñii ñi nga xam dañoo ñëw sax xewlu ji sax dañuy am tiyaaba ci ci ci lii ndax sëñ bi moom mbiram moo yaatoo noonu waaw loolu looloo asalaamaaleykum may nuy ñëpp euh, yéen ngi fii ci biir conseil départemental bu cees nga nekk ngeen nekk ak suñu càmmiñ yi ak ñun jigéen ñi nga xam ne ñun ñooy agent conseil régional bu cees ah gannaaw bañ sante yàlla nag julli ci yent bi sallallahu alayhi wa ku ne xam ne ne boo déggee safar sa xel day daal di dem ci xaadimal Moustapha jigéenu conseil départemental yi daal di ne nag waa nag nun nag lu tax nun nag ñu bëgg a des ginnaaw ndax nag ku waral bés bi soxna maam jaara bu sa borom poroxaan moo ko waral kon jeeg ju nekk tey boo xëyee tey war ngaa mën a xalaat na kon safar si kenn warul la cee jiitu ndax ngir yoon bi nga xam ne yaayam ji di jëmm ji rafet gii nga xam ne ku ko dégg rek sa xol sedd ku ko dégg rek bëgg ngaa mel ni moom muy soxna jaaratulaay kon nag safar bu ñu koy wax ñun danoo war a xam ne kenn déggagul feder bu li muy am doole doole doole doole doole feder bu lu mu doon soxore Seex Ahmadou Bamba yëpp kenn déggagul màgg màggalu feder ba kenn déggagul ca tubaabee ñu ne màggalu Faidherbe bu waaye itam kenn ci àdduna ñu ne màggalu Faidherbe kan la ñuy wax xaadimal Moustapha muy jëmm joo xam ne jii nag dafa baax dans l'histoire que ñun suñu doom yi ñun ñii tey nga xam ne conseil départemental ku ko dégg xam ne nit dafay war a jànge nit dafay war a jëriñoo waaye itam nit dafay war a jànge kon njaboot gi war na noo mën a xam jëmm jii di xaadimal Moustapha lan moo waral coow li muy Mbaxaan Diop Mbaxaan Diop mi bindoon rëbb leetaram jox ko tubaab bi ne ko kii daal jiyaat la bëgg a indi ci réew mi kii daal bu ko xool nii ak taalibe mi mu naan taalibe la yore yorewul taalibe de mi ngi yore ay arm ah Mbaxane Diop moomee le 7 juin 1903 moo jiite woon mbir mi moo indi woon coow li ndax moo fexe woon boobu mu bind ba tubaab bi jox ko ñetti téeméeri soldaar mu ànd ak ñoom mu dem jël ab xeejam nga xam ne boo demee Daaru Xudóos tey ca maal ya nga xam ne moom yàqoon na ca danga ca fekk benn ba nga xam ne jëloon na xeejam ba di ko ca jamate waaye itam sa xel day daal di dem ci kan di buur ko mëndoo fen Diouf ba mu seedale sëñ bi seede mu mag ba ne ko sëñ bi mu naa mu ne ko damaa bëgg nga def ma li ca li sa xaj bi bii sa ma ne may def sama xaj bi mu ne ko ana na ngay def sa xaj bi mu ne ko sama xaj bi damay faral di def bu ma jegee ma dàq ko waaye su ma lekkee ba desal jox ko waaye itam su may yónni dama koy woo yónni ko moom te damaa xam ne fa ñu jëm fa ñu jëm fa ñu jëm ëllëg doo fa jeexal dara te man fa am dara boobaa nga fàggul ma ca la ko waxee diggam dig bu rëy ba ne ko waxuma leer ga ngay jóge waaye da nga am titre bu raw bi nga am fii ci réew mi kon waay ñun jigéen ñi dañoo bëgg a joxe conseil rek mooy lan dañ ne vertu amatul ci réew mi dañ ne teraanga amatul ci réew mi dañ ne jàmm amatul ci réew mi kon ñu woo boroom xam-xam yi ñi xam démb ñu nettali l'histoire xam na ndekete doomu aadama dangaa war a seedeel sa moromu jullit pour pourtant ñoom ñaar bokkuñu woon diine de balaa moo daal di fekk si diine l'islam waaye da koo seedal seedem nga ba mu jox ko le 7 juin foo tourné ci Fatick ñu jee sëñ di fa tëgg ngir lan ngir a sëñ Touba kon jaraw lakk sama sœur yi jaraw lakk sama frère yi ba ñu yàlla mayee xelu tey ñu def bés bu mel nii ànd pour xale yi mën a xam lan mooy safar mën a topp ci riirandoo gi rek wuti Touba mais kuy dem Touba xam xaadimal Moustapha lan la defoon ak ndekete doom aadama lu la gaañ rek ndekete ku la jegee la koy teg waaw xam nga dialogue boobu boo ko waxee dinaa ko mën a nangu parce que boo xoolee ci sama biir wax nee naa la ah ki nga xam ne mooy buur Coumba Ndoffène Diouf ba muy seedal sëñ bi booba du woon jullit mënoon na ne sama yoon nekku ci waaye mbaaxaan ba mu ànd tubaab bi di ñëw ñetti téeméeri soldat moom mu am téeméeri soldat daa ñëw gaw boo déggee gaw mooy encercler dafa ñëw gaw sëñ bi ne kenn du ko laal. ca la sëñ ba bindee ca ca ñaari turu yàlla ye rahmaan rahim daal di ne Mouhamed Touba ma jóge woon gànnaar ñëw ñibbi si Touba ni ko Mouhamed Touba mu ne ko naam mu ni ko lii ma la jox jàng ko ci wéetaay def ko ci sëb dënn téye ko ci sëb dënn bu ko tari fenn waaye fu soldaar ñëwee fu ñu taxaw rek taxaw fa ñoom bayit ba mu a lan mu ne ko yow sunu borom damaa jàng ci sama taalibe yii ak njàqare te njàqare gi dara warul ko lu dul man sama jëmm ji te man sama jëmm ji dara warul ko lu dul saw alxuraanul karim gii kon damaa bëgg jàq gii tuxal ko nga teg ko ca tubaab yi keroog la tubaab yee daanu ba seeni fital di daanu kii mooy xaadimal Moustapha. dama si dolli tuuti rek di remercier waa conseil départemental ndax lii c'est la énième fois ñu koy def ren mu tombeen tête euh, kiiw euh, président Siré Dia mu jàppale si conseil départemental jàppale leen bu baax boo gisee na ma gën a jël parole mooy dafa am suñu ji suñu biir. dafa koo xam ni daanaka bokkuñu diine mais di si sonn muy ma madame Sagna sincèrement ku ko xool da yaakaar ne sax si mbir moom moo organisé mbir mi ndax mu ngi si sonn subaa ngoon guddee bëccëg di si dox di si wax ma ne sincèrement man Yaxya moom moo ko yëgal moom moo woo démb ne ma dañuy safar ma ne ko ah bon mu ne ma damay safar te chaque année dama koy def te day jël xaalis bëri di si def bokkuñu bokkuñu diine mais day jël xaalis bëri di def boo ko xoolee ba si biir lépp lu fa kii mooy servir mooy joxe mooy def mooy kii te kuy dem kuy dem Touba tamit mu ñu la jox paas nga yóbbaale. kon kooku bu ñëwee ba fii yow nga ñëw indi si indi sa kii sa sa sa sa sa chaîne kii mooy président tailleur yi bu demee ba créé lii pour lii la événement yi mel nii la kon bu ñu bu ñu lu ñu def lu dul du ñu def lu jàppale ko.